tisbaar moom dañu sopp nga jàng ci saar yu guddi yi bokk ci tàmbali xujuraat jëm ci xabasa lu mel ne nga xam ne dangay jiite mbooloo am ci ñu wéré di am ci ñu bari soxla kon mën ngaa jàng saar yi gën a gàtt waaye bu dee yow dong baa nga ànd ñoo xam ñëpp dañoo sawal ci julli gu yàgg daal moom boo julli tisbaar ak suba moom dañoo bëgg nga jàng ci saar yu guddi yooyu lee tisbaar nag mën naa xaw a gën a gàtt tuuti suba rek tisbaar nag moom lépp dañ ko yelu nee na rakkaam bu njëkk moom tisbaar ak rakkaam ñaareelam dañuy am fatiha ak saar te nga yelu leen ñaar maanaam ñaar rakk yu mujj ci tisbaar moom du am aw saar fatiha kese la ñu am ñaar njëkk ñooy amaale aw saar te itam boo toogee ci jotaay bi ci digg bi maanaam boo amee ñaar rakk ba toog di taaya doo fa julli ci yonante bi doo fa ñaan nga yem ci Abdullahi wa rasuluhu rek ci gàttal bépp taaya boo xam ne doo ca sëlmale nga xam da ngaa jowaat doo ca julli ci yonante bi doo ca ñaan bëgg na léegi boo amee ñaari rakk day jóg jëm ci rakk ñetteel ba bu waxagum dara yoo bëgg yoo bëgg nga bàyyi ba taxaw jonn jonn loolu wax nag allahu akbar lu bokk te loolu dañoo bëgg nag moom lu bokk te loolu nga boole def tonk ba ak waxaali allahu akbar ja waaye lii nag moom bu dee ñaar moom dañoo bëgg nga bàyyi ba di ba taxaw jonn door wax allahu akbar ilimaan bi jiite noonu lay def kenn képp kuy julli moo xam góor la moo xam jigéen la noonu lay def mooy bu amee ñaar balaa wax allahu akbar nu bàyyi ba jóg ba taxaw jonn nee na bu fekkee daam ku lay jiite nag moom bu amee ñaar bay jóg jëm ci ñetteel ba da ngay mel ni koo yëgut bañ koo faale bàyyi ko mu jóg ba taxaw jonn ba nga dégg allahu akbaram nga doon tàmbali sa jóg yow itam yow itam ba tàmbali jóg bu wax dara ngay bàyyi ba jóg ba taxaw jonn doon wax sa allahu akbar waaw nee na nag gannaaw moo la waxee njàng ma yi demee noonu ci tisbaar doy na sukk ndax li ci des mooy na ngay rukkooyee ak na ngay sujjoot ak na ngay toole moom jël ma di ko baamu naa ko leerale woon te bàyyi wax julli suba rek loolu lépp ñoo ko bokk nee na tisbaar moom dañoo bëgg bala nga koo julli boo sawaree nga naasu la ñeent ñaar sëlmal ñaar sëlmal boo ko jullee ba àggali ba tey noonu nga naasu la ñeent ñaar sëlmal ñaar sëlmal loolu addis ba waxal na ne man xaafada xala arbaxi rakkaxaatin qabla zuhri wa arbaxin baxdaha xaramahullahu xalan naari waaw nee na ku sàmmoon teeg naasu la ñeent raka balaa julli tisbaar tegaat ci ñeent gannaaw bi jullee tisbaar yàlla araamal yaramam ci sawara ba tey nee na bala ngaa julli takkusaan sopp nañ loolu gannaaw si la ñeent ñaar sëlmal ñaar sëlmal gannaaw takkusaan nag moom gannaaw takkusaan nag moom amul naafila ndax dañu sip ku naafila gannaaw takkusaan moo tax daa wax ne ba julli takkusaan moom lan wax woon subaar rek lépp lépp ñoo ko dokkale ba mu des nag dañoo soppoon subaar am njàngam gudd te takkusaan ñu sopp am njàngam gàtt loolu de lañu wutee waaye li loolu de moom ñoo ko bokkule ñoo bëgg moom boo julli takkusaan nii ak timis mee ci kanam nga jàng saa yu gàtt yi yu gàtt yi nag moo tàmbalee sóoratu duhaa dem sóoratu naas waaw yu guddi yi nag moom moo tàmbalee woon sóoratu xujuraat ñëw ba ci xabasa timis moom nee na ñaar akam njëkk dañu bëgg nga biral ko wax ko ci kaw tey ràkk bu ci nekk ñaar njëkk ñi day am faati ak saar te dañu bëgg nga jàng saar yu gàtt yi ba tey mook takkusaan ñoo bokk ci saar yu gàtt yi mooy tàmbalee suratu duhaa jëm ci suratu naas yooyu muy gàtt yi rakkaam bu mujj nag moom fatiha kese lay am te it moom doo ko biral biral moom ñaar njëkk yi lay amee waaye mujj ba day am fatiha kese da nga yelu ko ko defee nag boo amee ñaar da ngay toog taay taay di jóg andi bu ñetteel bi boo njeexee nga taay sëlmal moom bu ñetteel ba nee na sopp nañ boo sëlmalee timis nga naafi la ñaari rakka nee na ñu sëñ mag bi daana dénkaane boo sëlmalee timis nga julli ñaari rakka rakk bu njëkk ba gannaaw fatiha qul yaa ayyuhal kaafiruun rakkam ñaareel gannaaw fatiha qul huwallaahu ahad nag boo ko ëppalee ñaar rakk day gën a baax rek ndax ñeent bari na tuyaaba lool juróom-benn yi moom nee nañu ba gannaaw boo sëlmalee timis boo naafilaa juróom-benn rakk yoo xam ne diggante ba nga sëlmalee timis ak ba nga ko naafilaa waxoo dara lu aay waxoo jën wax ci araam kon dana mel ne ku jaamu yàlla fukki atal ñaar jaamu yàlla gu rafet rafet mooy man salla baadal maghribi sitta rakahaatin lam yatakallam baynahunna bi suu'in ay xaraamin la jubli ci bi suu'in ji xadal na lahoo xibaadata sintay xasharata sana rawahu ibnu Xuzayma fi saxiixi wa tirmidi yi diggante timis ak gee taamu nañ ci lool bari fi naafila kenn sa kàttan rawante na bu fekkee ni yow ci guddi gi naafi dalaa jafe xëy na yow jamono boo gën a toogoon kon boo mënee bari naafila diggante timis ak gee bari na tuyaab lool ne da nga wax naa la nag ni ngay jàngee ci timis ba noppi la des moom mooy na ngay rukkooyee na ngay sujjoote na ngay toogee moom jëf ma di ko baamu ndax naa ko waxee woon ci suba rek ba tey lépp ñoo ko bokk.
nee na gee dees na ko wax salaatul xatamati julli marax waaye nag wooyee ko salaatul xisha yi moo gën ndax alxuraan da koo tuddee noonu ca bam ne wa min baadi salaatil xisha yi salaasu awraatin jooja ngay jàng ca sóoratul nóor
nee na gee moom ñaar rakkaam njëkk da nga ci jàng faatiha ak saar te bural ko boole ci am jàng li ñu bëgg nag moom bu dig réew bañ a guddee ne suba ak tisbaar bañ a gàttee ne taksaan ak timis yow bëgg mu digg doomu digg doomu nag moo tàmbalee suurat xabata ba ci suurat duha diggante boobu moo digg doomu di tàmbalee duha ba naa si moo gàtt nga tàmbalee xujuraat ba ci xabasa moo doon way guddi mu fasal yi noonu lañ ko teqalee woon dañoo bëgg na kon moom nga jàng ko ci saar yi digg doomu ñaar rakkaan ñu mujj nag moom faatiha kese lay am tey danga ko yellu boole ci ñaar rakk ñu mujj dañ ko yellu tam am faatiha kese su ko defee nee na boo xasee weesu li ma la leeral ci njàng mi yooyu la def ci melawoo ci na ngay rukkooyee na ngay sujjoot na ngay toggee jël ma di ko baamu naa ko waxee woon ci suba ba njëkk wax rek noonu la yëpp di demee ci googu wàll gannaaw ba nga julee timis tegee jotagut daal di si nga tëdd xaat tàmbalee nelaw ndax dañuy bañ nga farul ba ba nga yeew fekk muxtaarum ngay jàll de sax bu fekkoon ne gi xas na jot ba noppi moom bala ngaa sañ a tëdd nelaw faaw nga bàyyi fi sa wet koo xam ne moo lay yee nga xam ne boo naree far mu daal la yee waaye li wax nag mooy julli nga timis tegee jotagut nag nga tëdd na bëgg a nelaw loolu lañu sib gannaaw ba nga jullee gee ba noppi itam ñoo bëgg rek bu fekkee nekkoo di jàng nekkoo am gan nga waxtaan mbaa yenn yitte nga gaaw tëdd rek gaaw a yeewu ndax dañuy bañ boo yeexee tëdd daal di biddanti suba raw la te nee nañu teel a tëdd teel a yeewu moom dana tax a neexum xel dana tax a am wërsëg yàlla moom nee na boo ko déggee mooy nga yëngal saw làmmiñ di wax baat yi waaye nag bu fekkee saw làmmiñ yëngutuwut xel mi rek moo koy wax xel mi rek kuy tari moom du doy waaw tari xel mi dong lam ñu yëngutul dara du baax faaw lu néew néew lam ñu yëngutu di wax baat yi donte déggoo ko sax li ngay wax bu wér du ko tee baax la gën nag mooy nga wax ko ba soo say nopp di ko dégg waaw gën jaa ñuy yàlla daal moom la ci gën mooy li ngay wax soo làmmiñ suufe na waaye say nopp ngay dégg loolaa ci gën teew nag bu lam ñu dee yëngatu rek moom day wax baat yi rek loolu doy na ci yelu daa wax ne bu fekkee nag dañ laa tudd biréel wala biréel biréel sàngam xamal ne kon lu gàtt gàtt nga di ko wax ba di ko dégg yow bu fekkee doo ko dégg rek moom biréeloo biréel daal lu mu néew néew na nga koy dégg ku sa séew di ko dégg waaye lu wës loolu moom daal nekk ak yellu ñu ne jigéen nag wut naa góor ci góor moom lay sunnaam mooy biréel ci fan ko ko diggalee waaye jigéen nag moom day yellu rek te lu biréel loolu nag mu ne wute nañ ci ñoom ñaar jigéen moom du biréel daa wax ne nag mboolem melo yi ñuy jullee ci rukkoo sujjóot ak njàng mi yépp rek dañ ko waxee woon ci góor noonu la ko jigéen defee dañoo bëgg li ñu wute mooy dañoo bëgg góor bu dee julli day soreele ay cëram ñu soree te jigéen nag moom tawuñ bu soreele ay cëram bu koy dañoo bëgg bu sëggee ba nga xam ne yaa ngi sujjóot léegi say bëti moom na sorenteeg sa biir say loxo sorenteeg say poqtaan nga xam ne moom daal nga yàng say cër muy soree bu dee boo dee góor te bu dee jigéen nag moom tàmmoom muy soree la ñaari lutam wala muy soree ñaari përëgam day mel ne ku lemu rek bàyyi cër yi mu jegee ràbbaloo foofu rek la wuti góor loolu lépp nag sopp la góor ga bu yàngutoon dugatee baax jigéen ji itam bu ràccoon li góor di ràcce itam dugatee baax waaye ku ci nekk rek lañ la dégal mooy lañ gën a sopp xam nga gee la mujj na wax ci mboolem xeeti julli yi gannaaw gee nag ci lañu julli safaa gotar moo tax mu ne mu julli safaa gotar jëxëram ci biral xanaa boo julli safaa gotar dañoo sopp nga biral ko wax ko ci kaw dañoo sopp rek ci takk moom naafila goo def ci guddi rek nga wax ko ci kaw biral ko naafila goo def ci bëccëg bi nga wax ko ci suuf yellu ko ko def safaa gotar nag kon ci guddi gi leen sopp rek nga wax leen ci kaw nee na boo doon naafila bëccëg ba noppi wax ko ci kaw ba tey loolu sañees na ko waaye nag daa wax loolu rek waaye ca dëgg-dëgg gënut bañ ngaa defa gën naafila ci bëccëg moom yàlla ba mu waxoon rek moo ci gën achafu day firi tollantiku mu ne moom nag lu néew néew nga def ko ñaar doom jaa bari na amul yemukaay maanaam bu la neexee julli ci julli bu la neexee sasoo téeméeri ràkk ci ci guddi gi waaw bu la neexee sasoo téeméeri ràkk mbaalu ko ëpp kem sa kattan rek waaye doom jaa néew safaa nag moom mooy ñaar ñaaram mënu ko yees su fekkee ngay julli safa ñaar rakk kese moom dañoo bëgg rakk bu njëkk ba nga jàng ca fatiha teg ca sabbi isma rabbikal a'la rakk ñaareel ba nga jàng fatiha teg ca xul ya ayyuhal kaafiruun taal taayu sëlmal bu ko defee loolu daal nekk ashafu dañoo bëgg wéetar moom boo koy def benn rakk dong la te mboolem julli sunna moo ci gën a dëgër li muy néew néew di benn rakk gannaaw boo jàng fatiha dañoo bëgg kon nga teg ca xul wallaahu ahad teg ca fàlla xëj naa fi maanaam bu fekkee da ngaa sawar ba te yem ci ñaar ak kese kon da ngay def rek ay ñaar ñaar ay ñaar ñaar ay ñaar ñaar rek ba war a jeexal daal koy àggalee wetar xayante bi dañu naan ijxalu axiru salaatikum billeyli witaran def leen wetar mu mujj si seen julli guddi loolu moo tax nag kon da ngay def ay ñaar ñaar rek ba mu bëgg bàyyi nag daal jël wetar tëjee ko li nga doon def lépp ñaar ñett yëpp wér bee dane da daan julli fukki rakka ak ñaar teg ci wetar mu fukk ñett benn ban daan julli fukki rakka teg ci benn mu fukk benn
am na ñu dëppale yaari nett li wax ne dafa aadoo woon bu jàppee ba noppi julli ñaari rakk yoo xam ne da ko daa woyefal maanaam da ko daan gaawal kenn ki rek moo nett li muy soxna Aïchatu waaye nag dafa wàññiwaale ci benn nett li bi ñaari rakk yooyu te beneen nett li ba wëññiwaale wu ca ñaari raka yooyu moo tax fee mat fukk ñett fee nekk fukk ak benn.
li gën ci booy naafila ci guddi gi nag mooy nga dem ba ca suuf ba nga xam ne moo mujj ci guddi gi. boo defoon guddi gi ñetti xaaj bu ñaar ñu daalee ba mu des benn foofu lañ gën a taamu ci julli ndega mën ngaa yeewu ndax la addis ba ne woon yenn silu rabbuna tabaraka wa taala kulla laylatin ila samaa'i dunya hina yabqa sulusul layli al axiru yaqulu man yadduhooni fa astajiba lah man yasaluni fa utiyah man yastaxfiruni fa axfira lah addis ba dane guddi gi boo ko defee ñetti xaaj bu ñaar ñu jàllee ba mu des benn yàlla day wàcc ba ci asamaani adduna si dama wax rek doomu aadama ni mën a ni mën a xame rek ndax ba ko jeeñeer ni ko yàlla jegee rek nda yàlla moom duñ jéem a xam na mu wàccee ba ci asamaan soosu waaye daal day ñëw ba ci asamaan si gën a jege abdoon di wax naa ay ku may ñaan day wàcc ba ci asamaan adduna si mën a ku may woo ma wuyu ko ku may ñaan ma may ko ku may jéggulu ma jéggal ko loolu moo tax nag du kon waxtu woowu moom mat naa fonk ci danga mën nga ci ay yeewu ne boo mën a yaxee say naafila ba ci waxtu woowu nga door a jóg ne def ko loola gan daa wax ne bu fekkee yow nag lépp ci yow daal boo ko seetal da ngay far bi donti da ngay dem ba suba jot nga door a yeewu doo yeewu ci guddi gi kon li gën a wóor mooy lépp loo nar a naafila rek bala ngaa tëdd da nga koy naafila ba wetal sax boole ci soo yeewuwaatee ci guddi gi nag te amul cawarte nag mën ngaa baamuwaat ay naafila di julli ay ñaar ñaar rek te bañ a baamuwaat wetar ndax addis ba dañu woon laa witraani fii laylatin yaari wetar du am ci genn guddi kon nag ndegam da ngaa jàppoon ne yow soo yeewu ci guddi gi yombut bariwut ba tax nga naafil la nga man wetar teg ca kon boo yeewoo ci guddi gi ci obare yàlla te sawar da ngay def ay ñaar ñaar rek noonu te bañ a baamuwaat wetar bu fekkee da nga am woon dog boo xam ne da nga ko warloo yeewu di ko julli guddi gu ne xam na nga ko aada woon guddi gu ne rek da nga yeewu ci guddi gi di julli ak lim boo xam ne da nga ko warlu muy ab dog mooy sab dog xam guddi boo xam ne nag moom ba ngay yeewu daa fekk fajar jot mbaa fajar jege xam nga dañuy wax ne bu fajar xasee fenk maanaam bu salaatu xasee jot rek dañuy aaye mboolem xeet naafila ba mu des ñaar raakay fajar waaye da nga am nga dog boo aado wala julli naka jëkkal daañu la may nga gaaw julli sa dog boobee sib ga ñëw rek ñëpp waaye yow génn nañ la ca yow daañu la may dog bu nga aado wala julli nga gaaw julli ko gannaaw bu fajar fenkee daal gaaw def ko teg ci weesar door jël suba loolu daañu la ko may te bu fekkoon ne nag kooku aado ko def nga ko may mais sax dañ koo fonk lool ba nga xam ne boo demoon bay julli suba fàttali ko ne wëttaroo te waxtu yaatu dañuy dëgg nga dagg julli suba ga dem wëfar doo ñëw ci julli suba gi ndax fonk nga ko fonk ne ndax nañ la mbooleem julli suba yi doo weesoo farata yi moom moo ci gën a màgg.
moo tax ñu wax ne boo demoon bay julli suba yow doom ci waxtoom fàttaliku ne wetar kat defoo ko woon kon dañuy sopp nga dagg julli suba ga dem defi wetar door a ñëwaat ci suba gi bu fekkoon ne nag daa am ku lay jiite nga xam ne kon yow du yow dong daa am ku lay jiite kon nga wéy rek doo mën a dagg ndax ilmaan jaay tax ilimaan ci lañ wute bu dee mooma ndax ilimaan dana dagg wala du dagg
boo xasee foog moom nag jiw suba ba nga door a fàttali ko ba far ne moom jeex na kon da ngay jàpp ne moom wetu raw na la tey ci boobu bis ba ëllëgati rek moom.
hadis ba daa digle bu ngeen duggee ci jàkka na ngeen julli ñaari rakka nuyoo ko jàkka ja bala ngeen a toog moo tax mu ne nag ku dugg jàkka te ànd ak laab bu mu toog te julliwul ñaari rakka da nga waxtu woowa dagan naa naafilaa waaye nag waaye bu xasan toog it du tee mi sàkku mu jóg def ñaari rakk ña toogaay ba du ko rawale bu dee ci yoonu maaj nag moom bu fekkee da nga romb rek jàll du aajoo ngay julli ñaari rakk ñooñu bu fekkee ne ñëw nga te nar a toog rek ci yoonu maali moom dañuy sàkku julli ñaari rakk ñooñu ba tey boo dikkee fekk ñu taxawal farata itam da nga yéenewaale ñaari rakk yi nuyoo gi far ca farata ja rek bu ko defee ñu far la pindaaleel tuyaaba ja incha allah
nee nañu nag bu fekkee ne waxtu xam ne dañ caa aaye ku ca naafila kon dañoo bëgg wax subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko yent yoon boo ko waxee dana daal di taxaw taxawaayu nuyoo jàkka nee na bu fekkee da ngaa ñëw ci jàkka ji te fekk julli boo woon ñaar rakkay fajar kon neen da nga julli rek ñaar rakkay fajar mu daal di wecc nuyoo jàkka te yoo bëgg rek nga julli ñaari rakkay fajar dong mu daal di wecc nuyoo jàkka loolu lañ taamu maanaam bu fekkee nag ci sëñ nga jullee woon ñaari rakkay fajar ya gannaaw ba nga ñëw ci jàkka ji te fekk imaam ji jullee gut kon ndax da ngay toog rek noonu doo sañ a julli dara dara am da nga sañ a julli ñaari rakk ñëwee ko jàkka ji wax ji gën a wóor mooy da ngay toog rek noonu xaar bañ taxaw waaye doo julli dara am na lu ci am na waaye la gën a wóor mooy doo julli dara. takk-takk yi mooy rek bu fekkee ne moom fajar xas na fenk moo xam nodd nañ moo xam nodduñu ñaar rakkay fajar doon nga sañ julli ci mboolem xeet naa fi ngay te léegi defal nga ko sëb ñoom moom kon boo dikkee jàkk ji nga toog rek xaar bañ taxaw nga ànd ci waaye doo sañee julli ñaar rakk di ko nuyoo jàkk ji door toog na di xaar déedéet da ngay toog rek noonu rek xaar bay julli rek nga ànd ci moo tax mu teg ci illaa tuloo samsi ba fenku jant ba kere jant bi fenk te sax bu jant bi tàmbalee fenk ba kere lépp di dugg day araam moom naafi la jant bi fenkee lépp lépp nag te ba nga ci teg lu tolloo ñetti mètre maanaam mu yëkkati ko jël ñetti mètre loolu itam sib ga ñëwaat nag maanaam jàppal ne kon feer fenkee dañuy sib naa fi la ba mu des ñaar rakkay fajar moom rek nga ciy sañ ba kera jant bi tàmbalee fenk bu jant bi tàmbalee fenk mu araam ba lépp génn ci bitti ba lépp génnee ci bitti ba nga xam jant bi yaa ngi seen lépp sib ga ñëwaat ba mu yëkkati gul toll ñetti mètre ci sa xoolu bët bu ko defee naa fi la war a dagal nag nga xam ne julli yoor foofu lay tàmbalee jëm wuti nag tisbaar ji bëgg a jot mu diggante boobu mooy julli yoor yoor bu teen daañu la may nag gannaaw ba nga jullee suba nag gannaaw ba nga jullee suba li fekk muxtaaru suba di jeex boo fay jàngal alxuraan daañu la may ba accès ci bërëbu sujjóot nga sujjóot te sujjóot boobu daa xawee ci naafila waaye nag may nañ ko foofu moom xew xew dana ko leeral tam ci gannaaw takkusaan gannaaw takkusaan dañu sib naafila waaye daañu la may gannaaw takkusaan booy jàngal alxuraan li fekk muxtaaru takkusaan di jeex daañu la may nga mën a sujjóot sujjóotu alxuraan ba dafa tey daañu la may nga mën a jullee julleeg néew
julleeg néew moom fardu kifaaya la fardu kifaaya mooy loo xam ne bu ko ñenn ñi defee ñenn ña mën nañoo toog tey dara du leen ci fekk bu ko ñëpp bokkee bàyyi ñëpp bokk am bakkaar gannaaw bu ñu jullee takkusaan nag daañu sit naasi la waaye daañu maye ku julle julleeg néew ba keroog muxtaarum takkusaan di jeex mën nga ne sax ba keroog takkusaani suuf di jot ba suuf si xaw a xong ndax jant bi xaw a xong buñ àggee foofu moom dañuy sib ku fa jullee ab néew kon nag ku bëgg a toppatoo ab néew gannaaw takkusaan da nga cay farlu rek fexe ba buñ jullee takkusaan dal cay gaaw a jublu jullee ko balaa muxtaarum takkusaani jeex te mooy balaa suuf si xaw a xong ker yi jàppaloo bu loolu xasee am dañ koy sib waaye nag bu fekkee dañoo ragal ne néew ba kat ku ko gaawuta toppatoo daal di koy jébbal boroomam mu daal di soppi ko kon moom waxtu mën doon rek mënees na ko caa daal di waajal daal di koy yóbbu fa saasa nanu seetlu nag ne bu ñu ragalee ci néew bi ak soppi ko bañ wax ne mënees na ko yóbbu ci waxtu wu ne kon xamal ne waxtu wañ ko jullee moo xam waxtu wu ñu araamal la ku ko ci jullee moo xam waxtu wu ñu sib la ku ko ci jullee deesul baa mu jullee ga ci waxtu wa nga xamee ne kenn aayewu ko ca noo xam fekk na ñu suul ko ba noppi noo xam fekkul ñu suul ko ba noppi waaye nag bu fekkee ni néew ba kat ragaluñ ca woon ak soppiku ba noppi ñu jullee ko ci waxtu woo xam ne wu ñu araamal la ku ko ci jullee kooku kat bu fekkee ne suuluñu ko moom des na ko julleewaat ci waxtu woo xam ne sañes na ko caa jullee bu fekkee xas nañ ko suul ba noppi nag kon ñu bàyyi noona deesu ko julleewaat bu fekkee nag néew ba ragaluñ ci woon genn soppiku ñu jullee ko ci waxtu woo xam ne dañoo sib ku ko ca jullee waaye agul ca araam kooku moom dañoo xas nañ ko jullee rek kenn du babuwaat jullee ga moo xam suul nañ ko moo xam suuluñu ko nga xam ne kon néew bi ñu jullee ko ci waxtu wu araama jullee ak waxtu wu siba jullee wuute nañu ndax bu dee waxtu wu araama la jullee moom bu fekkee jotuñu koo denc mooy suuluñu ko kon nañ ko baamu nañu ko baamu ci waxtu wa nga xam ne ca lañ digle ku ko ca jullee waaye nag buñ ko xasee suul ba noppi moom deesul baamuwaat jullee ga kon nag nga jàpp waxtu yi sib yi ak waxtu yi araamal yi ba mu leer la jàppal ne gannaaw bu fajar fenkee nga xam ne nodd salaatu jot na dañuy sib mboolem xeeti naafile yépp ba mu des ñaari rakkay fajar rek bu fekkee ne nag julleeg néew la moom daañu mayee ku ko def ci yooyu jamono ba kera bët di xaw a set nga xam ne bu nit dee ñëw boo ko xoolee man koo xàmmee li fekk booba nag sit nañu sax jullit naa fi la waaye daañu fa mayee boo dee jàng alxuraan ba toll ci bérébu sujjóot nga sujjóot boo fa bëggee jullee ab néew mën faa jullee ab néew sit googu nag mooy jàll ba catu jant bi tàmbalee génn di fenk bu catu jant bi tàmbalee génn moom naa fi la day araam jullee ak néew day araam sujjóot sujjóot alxuraan day araam ba keroog jant bi lépp di génn jant bi fenkee ba lépp génn nag ñu delluwaat sibataat yooyu ba kera jant bi yëkkati lu tolloog ñetti meetar ci sa xool bët loolu mooy gannaaw bu fajar fenkee loolu lañ ciy wax gannaaw boo jullee takkusaan nag ba noppi dañuy sib naafila ba kera jant bi tàmbalee so bu jant bi tàmbalee so te lépp dugagut mu daal di araam bu soxee lépp lépp nag bu dee ci yoonu Maalik itam li fekk julleeguñ timis dañuy sib naafila waaye nag ñun la ko leerale léegi gannaaw bañ jullee takkusaan li fekk muxtaarum takkusaan di jeex daañu maye ku fa jullee ab néew geneen naafila nag moom deesu ko fa man waaye daañu maye ku fa julleeb néew daañu maye ku fa sujjóot sujjóot alxuraan boo dee jàng ba toll ci bérébu sujjóot nga xam ne kon yaari yi moom muy sujjóotu alxuraan ak julleeb néew daañu ko maye ku ko def gannaaw takkusaan li fekk muxtaarum takkusaan di jeex te mooy kër yi jàppaloo takkusaani suuf jot bu dee gannaaw suba itam muy gannaaw fenkuk fajar daañu maye ku def yooyu yaar ba keroog muxtaaru suba di jeex te muxtaaru suba mi ngi yem ci bët di tàmbali set ba nga xam ne bu nit dee ñëw te muurul kanamam nga mën a xàmmee kanamam kon ñu jàpp takk-takk yooyu